فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معتسون وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكرر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه وآله وصحبه السلام ومن جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله أعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كل ما يرتقي إليه من الجميل يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته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 سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعه بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ديره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد العثرات المبنية صلى الله عليه بآله وصحبه والأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل kilifa gi ci jiite julli gi ak jàng xutbab arab bi mu ci baaxoo teg te def ko ci ndigalam ndax moom mooy al imaam al xaqiqi ñun ñooy suñu day teewal ba ñuy déglu ndigal rek balaa nu koy jox kàddu gi mu teg ci lim ci teg ba tey ci ndigalam ñu wutu ko ci fàttali mbokki jullit yi ñi fi teew ku ko dégg ku ne rek lu ci bisu tey bii ak bis yu mag yii nu toll ngir ku ko yàlla fekkelooti mu bañ leen a sàggane bu leen musta sàggane it mu yokk jëfam kenn kàttanam fan yii nu toll di fan fukk yu jëkk ci tabaski te tey mujj ci yàlla nañ ko yàgg teewe te di ci jaamu yàlla fan la yoo xam ne ñu yàlla bëggee ñun jaamu yi ko ci jaamu moo raw ñu mu ko bëggee ci yeneen fan lu mën di doon ak doonte nag ci fan yépp la ko bëgg amul yenn fan yu bëgg ku ko ci moy ni ko ñépp xam ñu man cee gise ne loolu mooy ku ne ci ñun lim daa def ci topp ndigalam ak moytu tereem ak ñu mën di toll bu fan yi dikkee daa war a jéem mu yokk bisu tey bii nag mujj ci te ràññu ko ci lool gën ci bisi at yépp kenn mënu ci def lu ko gënal gannaaw faratay juróom wut ci tabaski ñoo xam ne sarti tabaski daje na ci tabaski am na hadis bu ci wax waamee ñu ko doy dalit dikk na ci yenn si xaax yi tirmidi andi na ko ak ibnu maaja mu di ma amila aadamiyun min amalin yowma annahri ahaba ila allahi min ihraqi dam innaha la tati yowma alqiyamati bi quruniha wa ashnaaiha wa adlaafiha وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا وربما هنالك اختلاف بسيط في اللفظ مثل ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ومثل لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل, بمكان قبل أن يقع على الأرض بدلا مما ذكرت في بداية ونهاية الحديث bii mooy wax ci bésu tabaski bi bii wax ci nga leen fukki fan yépp nag te ñaar ñi ma tudd andi ko bay xaqi nit andi ko mooy maa min ayaamin ahabu ila allahi an yutaabada lahu fiha min ashri dilhijja yaadilu siyaamu kulli yawmin minha bi siyaami sana wa qiyaamu kulli laylatin minha bi qiyaami laylatil qadr Buxaari moom andi maa min ayaamin al-amal as-saalih fiihaa ahabbu ila Allah min haadihi al-ayaam yaani ayaam al-ashr qaaluu yaa rasuula Allah walaa al-jihaadu fii sabiilillah qaala walaa al-jihaadu fii sabiilillah illaa rajulun aw illaa rajulan xaraja bi nafsihi wa maalihi summa lam yarji' min daalika bi shay' mu ne amul yenn fan yoo xam ne yàlla bëgg na ko ci def lu baax lu raw ñun bëgg na ko def lu baax ci fan yii jublu ci fukki fan yi mu ne ko yonente bi yàlla bi ba ci jihaad sax ci yoon yàlla jihaad ci yoon yàlla sax li muy rëy rëy nit mu ci am lu toll li muy amee ci def lu baax ci fan yi mu da mu ne ba ci jihaad ci yoon yàlla ba mu des rek genn waaye bu génn jihaad ak bakkanam ak alam ak alalam ak del siwaat te del siwaatul ak dal ci yooyu bakkanam des fa alalam des fa kooku rek mooy ki mën def lu baax ci fan yi bu teg yi man ci am lu toll ki def lu baax ci fan yi dana ko ci am kon jullit bu ne war war nañu ñaan yàlla fekke leen at yu bari te saa bu dikkee mu góorgóorlu ci jëf-jëf yu baax góorgóorlu yit ci moytu safaan bañ leen di jaxase yàlla tere nag di yem ci safaan moom it des koy ful lu aju ci jëmmi tabaski ni nag bu amul ayib ju fees rek rawatina ju bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara dal na doy insha allah ñeent ayib ya ñooy soox pat wopp jeex yii lu ci fees day yàq buñ ci boolee xool bu baax bët yi ak nopp ya ni ko yonent bi diglee sallallahu alayhi wa alihi mu bañ a doon borom ñoom bu dagg bay nangu ca kanam ba wala fa tolloon bopp ba wala borom ñoom bu xott ko bu jëm ñu gën a baaxut bu mënee mucc ci ayib yépp nag ju ak ju feesul mooy muxtaar la loolu lépp nag day fekk tabaski mi egg ci ci nag war a egg dee xar lu néew néew mu am juróom benn weer am na juróom ñetti weer am na ñu ne am na ñu ne at bay mu dugg ci ñaareelu at nag mu dugg ci ñetteelu at bu duggee ñeenteel ci gëléem mu dugg ci juróomeelu at bu duggee juróom juróom-benneel mu gën kum jàppandoo ci moom tey balaa sawaal fii ba gannaaw suba ca sawaal du fi jàppandoo bu baax waaye nag guddi bokku ci bu sawaal jotee tey li dale foofu ba jant bi so mooy ñaareelu daraja yoor yooru ëllëg ba sawaalam jot topp ci yoo réere gannaaw ëllëg ba sawalam jot topp ci ëllëg ci gannaaw sawal nag kum jàppale ci loon kenn gis ne bu ko deful ba jant bi so def ko du ko jàppale gannaaw ëllëg ca yoor yoor tere tee mu jàppale ko ku xamul it moom xam na yàlla xam na kooku lan la ko def balaa jant bi ëllëg di juróomeelu daraja bi bàyyi ñeenteel bi di yoor yoor gannaaw ëllëg ngir ngànt ci gàttal li lañ tënkoon ci fukki fan yi ak ci bisu tabaski bi di bis bi ci fees yàlla na leen yàlla yàlla na leen yàgg a fekke te yàgg cee jox kàddu gi al imaam al akbar ginnaaw bi ñu ko wutoo ci lii ñu wutu wa abdullah an yuayidahu wa yansura wa yaxfadahu wa yastura wa an yutiila baqaa'ah wa an yujawwida shifaa'ah wassalaamu aleykum wa